dama ko dem seeti parce que am na koo xam ni moom ko jotuma ko woon gis parce que mu ngi woon ci màggal bi nekk ci masala bu jinam nekk ci passation de service loolu moo tax gisul ñu war def réunion commencé mais depuis réunion yi dem ba léegi il vient les représenter ma dem seeti ko di ko yëgal li nga xam ne ñu ngi koy def ak coow li rendre ko compte parce que moom nekkoon na coordinateur information boobu.

Nous dugal kenn amuma ci le pouvoir charte bii ñu valide, c'est la conférence des leaders mooy jël décision yëpp te bés ba muy jël décision yi vote les élèves démocratiquement et la majorité a décidé dans ce sens te loolu même moo ci contre dama d'accord par respect